ñaareelu xaaj bi ci ñetti xaaj yi juróom fukki fan gannaaw bésu jéggi ba yawut yi màggal bésu pantukot at mu nekk yawut yi dañuy màggal bésu pantukot ci bés bi dañuy sant yàlla ngir meññeef yi jëkk ñor yawut yi dañu daan jóge réew yu bare ngir màggal si bésu pantukot ci yerusalem ba su ba fukki ndaw yi ak ñaar daje benn bërëb yeesu yónni xel mu sell mi ci ñoom ni mu ko dige woon mu jekki am riir jib mel ni ngelaw lu am doole riir maa nga jóge woon asamaan riir ma wàcc fees kër gi taalibe yi daje woon lu mel ni làmmiñu safara tong ci kaw kenn ku nekk xel mu sell mi fees leen ñoom ñépp noonu ñu tàmbalee wax ay làkk yu ñu déggul woon bi nit ñi déggee riir mi ñu daldi daw ñëw seetsi lu xew ñu waaru bi ñu déggee taalibe yi di wax yeneen i làkk ndaw yi wax ak ku nekk ci làkkam nit ñi xamuñu woon naka la ndaw yi mënoon waxe yeneen i làkk te ñuy waa Galile am ñuy ñaawal ndaw yi naan dañoo naan ba màndi noonu Pierre wax ak mbooloo ma ci kaw Pierre dafa feesoon ak xel mu sell mi mu tàmbali wax ak nit ñi te ànd ak fit mu wax leen ne juróom ñeenti waxtu rek moo jot ci suba kon màndi xaju fi mu ne leen lii xew matal na li yonent yowel waxoon yàlla nee na ci bës yu mujj yi dinaa tuur ci sama xel ci kaw nit ñépp seen xeet wu góor ak wu jigéen dinañu wax ci kàddug yàlla waxambaane yi dinañu gis ay peeñu te màggat yi di gént ay gént waaw ci bës yooyu dinaa tuur ci sama xel ci sama kaw jaam yu góor ak yu jigéen te dinañu wax ci kàddug yàlla jëf ya saar ñaar aaya fukk ak ak aaya fukk ak léegi am naa ay laaj ñett lan moo xew ci bésu Pentecôte yeesu yónni na xel mu sell mi mu wàccee asamaan ñëw ci kaw taalibe yépp te yerusalem ni mu ko dige woon xel mu sell mi dugg na ci ñoom te ñu tàmbali wax ay làkk yu ñu déggul woon ñeent lan la téere bu sell bi bëgg wax bi mu waxee ñu fees ak xel mu sell mi mu ngi tekki ne xel mu sell mi moo jiite ñi gëm yeesu loolu moo waral yéesu yónni xel mu sell mi yeesu dafa yónni xel mu sell mi ngir mu jiite ñi ko gëm te jàngal leen yónni na itam ngir mu may leen doole ngir ñu man koo seedeel xel mu sell mi dafa bëgg jiite ñi gëm ba ñu mën a dund ngir yàlla te déggal ko juróom naka la taalibe yi mën a waxe làkk yu ñu xamul xel mu sell mi may na ñi gëm ñuy wax ay làkk yu ñu déggul woon yéesu waxoon na ay taalibeem ne bu xel mu sell mi wàccee ci ñoom dinañu am doole ngir seedeel ko yawut yi ñëwoon ci màggal gi ñu ngi jóge woon ci réew yu wuute waaye ku ci nekk dégg na xabaar bu baax bi ci làkkam